jërë ngeen jëf mbokk yi ñuy rafetlu seen ànd ak seen site dakarmatin.com fas yéene ñëw nuñ koy defee ay bés bu nekk dégtal leen li nga xam ne moo di seen chronique. di ko tàmbalee ay laaj yoo xam ne jot naa ko di ay message di ma wax na ma waaw Pape Alé dañoo seetlu ne da nga noppi ba procès Khalifa Sall tàmbalee ba tëj ji ma ne ngalawaay lu ma ciy wax lépp loo xam ne muy rëq-rëq ma waxoon ko nit ñi ne amul firnde bi lañuy dund jamono yi ndax lu toll ci lu ëpp semaine ab yàlla ñu toog ci procès boo ne ba tey ji question de fond bi maanaam mbiru caisse d'avance bi mënuñu ko waxtaandee lu ay exception de nullité yu bare bare bare bare judd ci procédure bi lim bi musta procès ñu gis lopp semaine layo bi yépp tënku ci lan mooy lan ci procédure bi ñu def ba dugal xalifa sàll ci biir kaso bi ba instruire dossier ak lépp lu ci mënta am muy lan ci jàngat mooy lépp lu ma lim ci rëq-rëq feeñ na tey waaye lu gën a doy waar xew tey kan mooy yeewoo sénégal umpale na xalifa sàll cautionné woon na dafa na dossier cautionné pour lan am liberté provisoire musuma gëm man da den ko jox liberté provisoire wax naa ko ay ñoñom ñu xam ko ma leen bo leen cautionné won 100 milliards sax du tax ñu jox leen liberté provisoire ñu dem ci ba mu cautionné liberté provisoire am sax ben journal bo xamné dafa génné liste ñi dugal sen xaalis ñep ci cautionnement bobu kër yi ñu ci dugal ak lépp ñëw tàmbali procès bi <laughs> lu day waay xew ñu ne lan ñu ne gisuñu loolu ñu ne gisuñu dossier boobu dafa réer mër kenn gisu ko. sénégalais yi kan moo umpale ne xalifa Sall cautionné woon na kan moo ko umpale kenn ñu ne dossier boobu mu cautionné woon dafa réer gis ñu ko chambre d'accusation gis nu ko cour d'appel gis ñu ko fenn kon su ma nee mbir yi. ay caaxaan moo ci am loo xam ne dëppawul ak yoon moo ci nekk tayeef moo ci nekk lu ma neex def ci li nga ne moo yoon sama yoon nekku ci dama koy salfaañe moo ci nekk tey ci fuñ toll nii rek ci procès bi firndel na ko fuñ toll nii rek ci procès bi firndel na ko beneen mbir mi ma koy rotal agent judiciaire de l'état bokk ci procès bi Donne partie civile mënta nekk agent judiciaire de l'État mënta doon partie civile ci procès pénal bi ci walu détournement de fonds publics ndax dañ ne xaalis lañu luubal ca mairie bu Ndakaaru dañuy public article 2 décret 24 novembre 2011 moo réglé walu comptabilité publique li may wax ni dama ba pare ngeen dem ko article 2 décret 24 novembre 2011 moo réglé walu comptabilité publique lu jëm ci deniers public deniers public, comme organisme public yor comme collectivité territoriale yor ko article 152 ak article 153 bu code pénal dañoo leeral bu délit de détournement de deniers public. pour ñu bañ di confondre li nekk moomeelu état bi ak li nekk moomeelu collectivité territoriale ngalawaay caisse d'avance bii tax ñu tëj xalifa sàll ak ñenn ñi kuy waxal yàlla te yàlla tax du alalu nguur gi déedéet du alalu nguur gi ñu ngi ko voté ci budget ville de dakar ville de dakar nekk statut de commune am denier public yu ñëpp xam kon caisse d'avance bi ku mom mairie de Dakar moko mom nek personne morale de droit public ñu war ko tegee ne le mu wuuteeg état bi kon bu détournement amé ci bir caisse d'avance bi ku ci am yàqu yaqulé du état bi mairie de Dakar mo ci am yàqu yaqulé ndax xaalisam lañ détourné denier publicam lañ détourné lu ci état bi di wut lu ci état bi di wut wala bu ci état bi bëggee duggit faw mu wax nit ñi lan moo ko ci boole lan moo ko ci boole ndax fonds de dotation ak fonds de concours xam nañ fan lay dem ndax buñ ko waxee dañuy wax ne ci éducation lay jëm wala ci lii lay jëm caisse d'avance bi nag bokkul ak loolu dara ñu ngi ko wootee ci budget mairie de Dakar kon agent judiciaire de l'État yoonam nekkul ci mbir mi kon bu nekkee ne am na kenn koo xam ne dañoo luubal xaalisam mairie de dakaar la état bi foog ñu bàyyi di jaxase jaxase bi lañu war a bàyyi agent judiciaire de l'état bu bëggee représenter collectivité territoriale bi xanaa kay conseil municipal dana def délibération na ko jox nañ la dogal nga représenter mënta bokk ci procès bi mënta bokk benn yoon ci procès bi waaye dañ ko ci boole mu suuxlu ba procès bi jeex président tribunal bi dàq li nga xam ne moom la bëggoon dàq ko ci verdict bu muy rendre dàq ko buñ ko ci boolee dañ ko ci boole ba mu suuxlu suuxlu suuxlu suuxlu suuxlu ba procès bi jeex ñu génne ko ci dañuy ñaan suñu réew ñuy respecter suñuy texte bu nekkee ne état de droit la ñu nekk sàmm ko bëgg ko waaye lu gën a doy waar moo di su ma déggee ñuy wax ne procès bi lu ko wundu yépp mooy wàllu bonne gouvernance lépp leer président Macky Sall am premier discours ñu Mes chers compatriotes, s'agissant de la gouvernance économique, je serai toujours guidé par le souci de transparence et de responsabilité dans la gestion vertueuse des affaires publiques je mets à ma charge l'obligation de dresser les comptes de la nation et d'éclairer l'opinion sur l'état des lieux. Je compte restituer aux organes de vérification et de contrôle de l'État la plénitude de leurs attributions. Dans le même sens, l'assainissement de l'environnement des affaires et la lutte contre la corruption et la concussion me tiennent particulièrement à cœur. À tous ceux qui assument une part de responsabilité dans la gestion des deniers publics, je tiens à préciser que je ne protégerai personne. Je dis bien personne. J'engage fermement le gouvernement à ne point déroger à cette règle. xam stratégie day fexé ba yàq organe de contrôle yépp yàq leen yaxeet ba nga xam ne liggéey bi ñu waroon a def pour ku luubal xaalis ñu mën laa jàpp duñ mën a def liggéey boobule stratégie la pour neutraliser organe de contrôle yi moom la ñu def dama leen koy benn bennal pour mu leer ñu njëkkee ci fan inspection générale d'État di bras armé bu président de la république nek ci présidence mom mo def rapport bu jëm ci mairie de Dakar 2013 lañ gëj dig kenn ku at mi ci concours inspection générale d'État. taw ablay wad loo ko mën chaque ñenti at mom concours bu ñu def Abdou Diouf benn ba ñaari at daan concours ci Macky Sall daanaka concours amu ci ñu fàttaliku 2013 lañ tudd kenn concours organisé wuñ pourtant Taxi dafa ci lan la nit inspection générale d'État waye xam nga nomination yu discrète ay fonctionnaire Ce qui est te fonctionnaire yoy ñu ci ëpp retraité nañ ba wala inspection générale d'État ñu mëna continuer di bénéficier ay avantages dañ leen di nommer de yóbbu leen foofu waxuñu benn yoon ne président warta nommer waaye texte yi dafa leer président war na nome waaye ci texte yi dafa am luñ ci sukkandiku ñu ñuy nommer lañuy wooye tour extérieur waaye ci biir texte yi dañ ne quota boobu du dépasser le tiers de l'effectif tey jii nañ xool ña nekk ci inspection général d'État dañ leen di wàññi ci baaraam ñoo xam ne concours moo leen fa dugal waay waay François Colin, di vérificateur général bu inspection générale d'État moom nga xam ne dañ koy yónni ci ay kuréel muy enquête ndax ñooñu nañu doxee méngoo nekk taxi. yi moom kuréel bi muy jiite di inspection générale d'État nu muy doxee méngoowul ak taxi dañ fay nommer ay nit de manière discrète dama ne la 2012 ñu ngi ci 2018 jamono yii

amoon na coow lu reuy lu amoon cour des comptes ndax dañoo nommé Mamadou Hadi sar 3 janvier 2013 2014 mom a 65 ans nek magistrat ñu il est frappé par la limite d'âge Il ci bobu une loi organique Il a day def mandat 5 ans renouvelable une fois Il li bari lol ñu comme amna 65 ans. warul mën a jiite lii di cour des comptes ndax day retraité magistrat la ba sax saisiroon nañ ci union des magistrats du Sénégal pour ñu wax waaye ba coow lu bëre ñu ne loi organique ba ñu jëloon di def mandat cinq ans renouvelable une seule fois mandat boobu mooy primé ci âge bi kon dañ koy bàyyi ba mu jeexal màndaam waaye tey ji lu xew donte bokk na ci magistrat yi nga xam legui âge de retraite 68 ans amna 68 ans Nous ko nommé 3 janvier 2013 def na mandat wu 5 ans 3 janvier 2018 Le mandat jeex lan que xew tay la cour est irrégulièrement constituée Tay décision bu mu jël acte bu mu poser nit ko attaqué kon xam nga ne cour bi bu mu jël nit mën na ko attaqué mën nañ ko wax mënatoo nekk ti premier président cour sa mandat jeex na da nga war a dem loolu di beneen organe de contrôle bu na sax of nag duma ci dellu si waat sénégalais yépp méngoo nañ d' ci benn mir ne ba fa na fi ngom ofnak jógee ba tey jii of nag doon tekkeetul dara sene bu njaay jaxate c'est pour amuser la galerie motax ñu bayiko fa amul dara lu fay xam fu dara sax dara la ci mom sax day wax lolu président ma non ma bañu nomé président nomé ma membre simple li xawmako non dañ ko fa nomé pour tuer of nak lof nak vraiment dena ta ñafa nek ñi ngi fayé ku wër 3 millions 500 mën nañ ko mengalé riba am deet ndax kurel go askan wi yep ken gisul lum leen liggéey rax ci dolli dignité pour guenne ben rapport sax mu nekké dañuy soop sax guenne ben rapport manuñu ko ñuy xaar rapport bi ba tay ji té rapport buñu guenne yépp fekk na fi ngom kayta laata muy dem paré won na ci enquête yépp ba tek of nak déna ARMP ken xamul lu fa xew sayer ñaam mandam jeex na bu yàgg ñepp na day dem bañ appel à candidature ba am kenn ku ñu jàpp na moko wara remplacer ñu xëy suba teel président Macky Sall renouveler contrat serñan ñëpp waaru dëgmu ci biir ARMP jaaxle ñu toogaat ci ñaari weer président mi signé woon décret dellu si waat ci décret bi ji kenn mënu wax lan moo valable serñan mi ngi tok ci bopp ARMP te amul lenn lu ko fa téye lay wu ñuy wax lan la day ARMP mu ARCP autorité de régulation de la commande publique loolu lañu lay dé. amul benn membre bu nekk ci conseil de régulation bu d'accord ci situation lé. waaye loolu yépp ñuy def nak ci organe de contrôle yi benn objectif lañ ci wut Fexé ba organe yoy duñ tekki dara duñ dox ndax organe bo gis mu wara dox te kiko yor chaise bi mi tok mi ngi yank te gëmul yalla xolu ci yalla xolu ci askanu senegal xolul wayu rafet ëlëg ak sibir fu mu tok daf fay riigu te ngir mu riigu nak day neex président de la république fer ñaa du saña def lu naqadi président de la république manta nek d'ailleurs so len xolé marché bu DCMP rejeté ARMP avalisé ko mu nek lu doy war cour des comptes ñu ngi xol fan lay mujjé of nak mom gas bam xot sul lañ fa def kon ñu fa nek ci kurel yoy yeb ci waaw président de la république la ñuy wëy ndax fragiliser na len de telle sorte que ñom ñep kenn sañu ci def lo xam ne neexul président Macky Sall ci booba nañu roy ci Côte d'Ivoire gi xam ngeen ne légui Côte d'Ivoire pour nga nek fa directeur des impôts domaine wala nga nek directeur douane appel à candidature la état bi day lancer appel à candidature ñu xol ku xarañ ku ci gëna xarañ ñu tan la du doon tanefu président de la république wala tanefu ñoñu président de la république ci loolu ñu ne ñun sénégal ñu ngi avancé ci gàttal dette intérieure commencé leen ko fay nit ñi sonn nañ torop den sant den gërëm den dig dajé seen benen chronique seen site dakar inshallah